ñëpp ñu ma mës fekk sama tool muy samay xarit samay am di jàmm ñépp xam nañ ko ngir taxaw bi ma daan taxaw ngir jàppale bi ma daan jàppale ngir cëru gi ma daan féete ma jóge fi démb tàggu ko ne ko maa ngi dem Dakar comme man par àjjuma laay nekk si tool bi àjjuma samedi dimanche après ma dellu Dakar ma ne ko maa ngi ñibbi ba àjjuma nekkate keroog laay démb laay gëj a gis man la Abdoulaye Massaly grand frère Mohamed Lamine Massaly euh, actuellement nii tey dañoo yeewu tiis tey euh, maanaam si si ni verger bu nekk fii euh, kër Daouda Cissé waaw man maay responsable tool bi fii nag te suba dama ñëwoon di indi ay ay grain ay de semence pour ñëw pour gars yi jëmbat ko ma ñëw ba wàcce wàcce ko pare ma ne Souleymane ma ne ma ne ko jël leen bagage yi ngeen delloo ko ngeen ngeen ngeen préparé jiw bi ma koy tonce naa ko Souleymane ba nga takk jabar de mu mu réema ko mu réema grand ñaanal ma rek af ma tuuré sama oto taal sama oto génn dem ba à la hôtel de hôpital régional ñu woo ma euh, yeneen boo yu fu nekk ñu woo ma ne ma grand Souleymane dafa daan dafa daan succombé quoi ma ne ko ah bon ma tourne sama oto ñëw ma woo hôpital régional ma ne leen ah, pour ambulance na na ñu ne disponible quoi dafa dafa occupé ma ne kon xaar ah, ma woo sapeur ma woo sapeur ñu ne am ba problème ma jox leen adresse bi ma jiitu leen fi ñëw ma constaté effectivement il e décédé bon après si laa woo commandant brigade bi après j'ai contacté mon petit frère ma woo ko ma ne ko mu ñëw mu ñëw moom mu jógee Dakar il a contacté le procureur le procureur nous a saisi après bi ni mu demee quoi c' était mort naturelle et c' était subite quand même mère subite waaw nii la daal Souleymane c' une personne boo xam ne dévouée et discret aussi na fi depuis 15 ans mu ngi si tool bi quinze ans. c'est une personne boo xam ne vraiment euh, euh, mu ñu ko fay mun ñu ko fay c'est un gars qui est loyable qui est loyable et serviable aussi waaw yàlla na ko yàlla moom gardien la woon moo nekkoon gardien principal tool bi daanaka moom moo xam lép sol bi lépp lépp lépp lépp xaj baak kër gaag appartement bâtiment yaag pison yi xar yi yëpp ak ganaar yi yëpp moom moo xam tool moom moo xam secret tool bi c'est lui le mémoire donc du jardin moom lu mu xam sax ñu sax xamuñu ko si bon ñu ngi jël jébbal si njaal seen famille di di leen di leen di leen di leen delloo ziar di bokk ñoom tiis bi naqar bi bien vrai que suñu dëj la waaye ñoom tamit ñoom ñoo si ëppale ñoom ñooy ay njabootam mais ñu tamit suñu wàll tamit lu ñu war dinañ ko def si incha allah ba lépp mat après ñoo neen police ñëw na la gendarmerie ñëw na la sapeur pompier ñëw neen def nañ constat yi lii bon acheminé nañ corps bi à l'hôpital régional au niveau de morgue ñu ngi defa papier yi nag après on a saisi le procureur incha allah ñu ngi xaar les à venir mais ñu ngi remercier tamit village à l'environnement ñu nekk fii village Kër Daouda Cissé imam bi tout ça sont tous mobilisés pour venir ici pour apporter le soutien moral quoi waaw vraiment euh, Souleymane yal na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana en tout cas la famille Massaly vraiment ñu ngi koy jaale seen famille famille Diallo. yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko. Euh, président Mouhamed Lamine Massaly ñu lay euh, masawu euh, tiis bi nga xam ne moo dal sa kaw ndax mën nga ñu expliquer lan li fi xew tey jii ba ñu wax ni ki doon garder si kër gi fii dafa génn àdduna si anam boo xam ne wax dëgg yàlla xaw na yéeme. man jaaxal na ma trop parce que bi si guddi laa fi jógee laa jógee dem fii si tool bi. doon ko doon leen fay seen salaire parce que huit personnes ñooy liggéey fii ci kër gi ma yëkkati ñoom ñëpp seen salaire ma jox ko ma ne ko fayal ñëpp ñu ànd wër ci tool bi ma doxantu xool ginaar yi parce que daf ma informé woon fan yi que sama ñeenti xar dee nañu ak presque plus de cinquante ginaar ma koy ma ne ko ah loolu da ndogal yàlla la ñu ànd wër ma xool def constat bi yëpp après ma yëkkati seen salaire jox ko ma ne ko am fayal ñëpp Souleymane def naa ak moom plus de quinze ans. demoon na sax ba jàppee ma ko woon bëtu gardien dama ko jàppoon comme sama frère ma bokkal ndey ak ba ñëpp ñu ma mës a fekk sama tool muy samay xarit samay am di jàmm ñépp xam nañ ko ngir taxaw bi ma daan taxaw ngir jàppale bi ma daan jàppale ngir cër gi ma daan féete ma jóge fi démb tàggu ko ne maa ngi dem Dakar comme man par àjjuma laay nekk ci tool bi àjjuma samedi dimanche après ma dellu Dakar ma ne ko maa ngi ñibbi ba àjjuma nekkate keroog laay démb laay gëj a gis Souleymane sa matin ma yebal sama frère bi euh, policier bi fekk moom dafa nekk permission ma ne ko ma joxoon xaalis dem ne ko jëndal ma ay jiw nga yóbbu ko si tool bi pour gars yi jiw comme nawet baa ngi ñëw ñu béy ay tamaate ak yooyu moom ñëw na ba gis ko yëkkati jiw yëpp jox ko ba di ko tooñ ne ko Souleymane yaa ngi jëm ak tey ngaa takk jabar yow foo ñu takkal la jabar. te boobu dara jotu ko. dara dalu ko. sama frère bi wan ko gannaaw dem fi muy yeggee sama kër yaay di gaare. ñu woo ko ne ko daanu na fekk ñoom ñu ma doon woo jotuñu ma après bi ma euh, xoolee sama téléphone gis seen appel si laa leen rappelé ma woo leen ma ne leen lu xew ñu ne ma Souleymane moo daanu aj tànk yi ma ne leen aj tànk yi ñu woowaat ma ne ma gaañu na man leen mënut ta nekk ni laa si yem après sànq la ay booru midi ay booru midi et quelque nakate ay depuis onze heures la daanu onze heures midi et quelques daal midi moins après bi ma yëgee loolu j'ai appelé le procureur hmm. donc ma woo le procureur bi ma ko woowee ma informé ko après si la yónni gendarmerie ak sapeur pour ñu ñëw xool constat wu mort beeg jël ko yóbbu ko hôpital régional pour autopsie. kon ñoom bi ñu ñëw amuñu woon possibilité récupérer fekk na. dee na bu ñu ñëwee fekk na mu dee na parce que moo teg fi ataaye. Hmm. si taatu mango bi ñoom fi la ñuy toog gardien fi la ñuy toog. ñu toog mu teg ataaye pour ataaye fi mu tegee ataaye rek. jotul naan jotul yeggali lool bi. lañ ma wax après la daanu. kon ko juróom du benn fan moom mosul wax ay feebar wala dara. mosuma ko xamoon naa daal asma woon na il était. asthmatique noonu la musa mel donc mais. peut hmm. benn benn symptôme démb ma moom ñoo nekkoon. Hmm. ñoo newoon démb ba ma jox seen salaire et tout. Hmm. tey mu xëy def ma ni Souleymane ni ma meloon ak moom. dem na sax ba sama armoire u nekk barke alxuraan moo ko yor sama nekk armoire am caabi bi yëpp moo ko yor lu mu xam sax sama kër man wallaahi wal azim xaw ma ko barke alxuraan mu xëy def ma nii. léegi dogal bi tiis na loolu yoon moom mi ngi def liggéey bi autopsie pour xool peut-être parce que dina doon li may dimbale nañ def autopsie ñu xam lan moo ko rey. parce que dina ma dimbale dina dimbale aussi ñi mu nekkal. parce que c'est moi-même qui l'ai demandé. donc c'est la saisir la procureur de la République. voilà euh, Massaly euh, euh, xam naa ne diis na trop vraiment. Serigne Diagne Kër Daouda Cissé. waaw Kër Daouda Cissé loolu président Massaly fi mu ne si Kër Daouda Cissé la bokk. waaw ci Kër Daouda bu Fandène bu kan du Fandène waaw. waaw yéen tey jii seen dëkkandoo bi nga xam ne tiis bi daal na si si kawam nan ngeen ko yëgee ak kàddu gi lan la. Mm, asalaamaaleykum wa ah, na wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah, Mamadou Massaly. tiisu rëy dal na ci kawam waaye fekk na nu dollee sant yàlla bu baax ndax yàlla mooy di yor ay dogalam dogal na lii tey ci mbokkam xaritam soppeem ku ko déggaloon ku juboo woon ak moom a ah, man dama toog rek fii ci penc mi kër Daouda Cissé fekk am koma doon téléphoné di ko woo ah, benn booyam fekk ma fa ni ma imaam kaay wuyu ma du ah bi ma dikkee ma dugg dikk fekk frère am boobu toog ma toog ba yàgg man ko ana mu ma du ma soli mun ma mu ngi ñëw man ko waaw loxew xew ma ah Souleymane kat moo daanu léegi rek dal di wàccub liggéey man ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah mu ne ma nii la amee man ko nag yàlla mooy dogal kullu nafsin saayiqatal mawt bakken bu ñoom dund na ñam dee se diggante eh, diggante masali ak ak ak ak eh, eh, moom fii la ko yàlla yemale woon waaye macha allah jëmb la joo xam ne jëmmu ju ni ami sekkare moom Souleymane moom Souleymane jëmm ju ni jube jëmmu ju ne nangoo mën naa ne day yàlla du jeexal dara waaye ku mel ni moom da jafe na ci ji jamono fukki at ak juróom am na koog masali masali itam depuis bi muy dox tool bi ba jot ci ba bisub tay bii nun la def ay wayjur noo koy wàcceel kaamil buy sàkk sarax lu muy def ci tool bi lu muy bëgg a def ñoo koy taxaw ci ñaan yi ñoo koy defal lépp moom itam mu amoon yéene joo xam ne ci moom toogoon nañu maag moom man ko ma sali Souleymane mii de loo def ci moom doyul mun ma imaam Souleymane mii de li ma yéene ci moom yal na yàlla dimbali kartanal nu ba li ma yéene ci moom mu def ko waaye macha allah moom itam nee naa ko ah, sa digg ak Eh, li la ci war lépp defu nga ko ci xam naa li nga ci yéene woon te àggagul moo ci des te yàlla dina muti loolu kon Souleymane yal na yàlla teeru ko yërmandeem ji yaatu ja yal ko ma laa i jënd teeru teral ko ah Mamadou Massaly nag noonu lay mas kaw ñun ñëpp noo ñàkk sa digg ak moom ni nga ko waxee am na nu ni ndax man looy des lu man ngay woo waaye musu benn sekkare bu dëkk bi baa sa mbokk baa keneen xam ci yow ku jóge ci Souleymane amul ñàkk nga lu rëy waaye yàlla mi nga dese dina la mottali yal na la yal na ko yàlla téero yal ma diyem asalaamaaleykum wa rahmatullah